ci DPG bi. xam nga waxoon nañ ko fii. waaw. allah kulli àllin assemblée amuñu pour ne amuñu pour neexal leen pour ñu def seen liggéey ñoom dañoo war a mettre à jour leur kii. le règlement intérieur. amuñu pour neexal leen seen liggéey la. seen liggéey la amuñu pour neexal leen buñ ko defee kenn waruleen a gërëm dañ koo yéex a def parce que quand l' arsenal donc constitutionnel. l'armature changé mais il y a a wu parce qu'un premier ministre bu aimez assemblée nationale mais il est exposé à une motion de de défiance. Hmm. ou de censure mais là, il ko a un règlement qui xam la bu dee bu ñu def motion de censure ñaata député ñoo voté pour le jàll Donc, il y bi euh, wax na mais il ko a un règlement intérieur bi donc dañoo war a def seen liggéey pour neexal leen ci ils sont payés pour faire le travail nañ ko def bi ci tegu waxoon naa fi aussi Ousmane Sonko premier ministre mais DPG assemblée lañ koy def <laughs> leneen lu mu def meeting la. monsieur populaire. assemblée dañoo fàtte ni. Hmm. l' est ouverte euh, qui hein, a au public hein? oui oui bu session amee public am na droit dem fa. effectivement. Hmm liñ indi mayu bu la neexee nga dem seetaan yi foofu kenn dàqe bu def yi toog bi fi leen ñi dañuy dem seetaan journaliste dañuy dem seetaan yi Et DPG boo accepté poste premier ministre constitution bi wax ni da nga war def DPG ci biir assemblée da ngay dem def DPG ci biir assemblée c'est bien que euh, euh, qui, comment dirais-je euh, communauté conseil communauté conseil constitutionnel bi hmm. dem euh, conseil voilà

Nous le premier jour on a perdu rien qu'à presque 80 millions. Hmm? oui c'est comme ça. campagne millions nous hmm. donc nous ni wax ni Nous euh, quand même constitutionnel euh, commission d'enquête parlementaire te ñeneen dem saisir euh, justice bi fay lolu dafa wara war a leer te dina mas a leer foofu loolu kenn mënu ko passer par porte et perte et perte profit donc hmm. euh, comme c'est très bien bu ñuy défé kii bi na dem dank mu def euh, DPG li ma ci ñaan nag mooy vraiment que su boobaa tout le monde reste républicain d'accord ñu def ben DPG boo xamni quand même hmm. dañ fay indi Adji Sarr yooyu loolu tam baaxul indi nañ ko fi dee waaw wax waxi Adji sar ak yooyu ba bu ko fa jar dañ fi wax lo xamni da fay jari askan bi wax ci budget bi parce que député yi bo fa demee mën nga wax 95% des députés ils ne parlent jamais du budget jamais te pourtant on parle de vote de budget Assemblée nationale Sonko dana dem def déclaration politique générale el mat euh, man damay wax euh, damay santat yalla foofu parce que vendredi passé fi lañ tok manela dëgg la sama sama sama sama premier ministre mu wax hmm. alhamdoulillah les premiers pas été posés depuis par des députés ñu avons def proposition de loi les trois présidents de groupe tok waxtan le président de l'assemblée entré en jeu nit ñi est-ce que le président de la république tok na mayal anormal moy président de la république Bassirou Diomaye Faye ak le président Amadou Mame président de l'assemblée baña tok tok nañ alhamdoulillah rabil alamin donc déclaration de politique générale à la kuli à moi je pense que nous dina incessamment seulement fi Ahmed fait que session donc en session extraordinaire et je pense que l'Union ñu l'Union tey li presse euh, euh, les présidents du groupe étaient en réunion hier ou ce matin donc incessamment dinañ jéem a nan programmé programmer après ça la conférence des présidents ainsi de suite hmm. ils vont essayer de programmer une session extraordinaire bo xamné ne dinañ ko tëj après l'épuisement du de l'ordre du jour donc loolu mën nañu rafet ñort que ni ñun très probablement ñu ngi jëm vers une déclaration de politique générale et vers une déclaration de politique générale bo xamante ni tay mom dina conforter document bi Adama bi Adama yor di wax ni parce que nak ce premier ministre lim lay jaay moy fan lay jël fan lay fan la fekk réew mi d'abord parce que buy def historique bi dina la wax fan la fekk réew mi mais dina la wax mom gens pas lay teg pour yóbbu fa réew et là dafay nekki fay dem fekk wat son projet le projet qu'ils nous ont vendu il faut ñun ñu dégg ko ci déclaration de politique générale pour nous a xam et lolu li wane que ni tay peut-être beaucoup de gens ñu ngi ci spéculer hein budget bi 000 milliards la woon tay nee milliards la beaucoup de gens en parlent mais moi je me rappelle juste ben fait bu lors du passage du ministre de des des finances session marathon budgétaire bi passé il y a un jeune parlementaire qui s'est élevé pour dire que monsieur le ministre, vous nous vendez du rêve. Les 7 000 milliards, ce n'est pas possible. Même ce taux, taux de croissance, c'est irréel. Donc, on a sincérité budgétaire. non. Si on les 5 000 milliards, on une sincérité budgétaire. Je commencé à sentir au moins que même si je ne concret, mhm. parce que je suis d'orientation budgétaire ma suis ma dégg le ministère des finances mu wax ma xool les techniciens nan nan nan nan élaborer ce ce fameux document là mais pas ko dama koy lire hmm. mais li ngay lire ak li ngay dégg nit ki wax des fois dina am benn déphase dina am déphasage donc nous toog xaar ko nous ñu demee si ces déclarations déclaration de politique générale bi non seulement peut-être inquiétude bi député Bobo Amon, le jeune Abou Mbacké Thiam inquiétude bi mu amoon ba jóg interpeller le ministère des finances ci sincérité budgétaire bi ak taux de croissance irréel réel, peut-être document le document est dina dina dina maintenant vous avez parlé tout à l'heure des des gens unis nommés. nommé une une expérience. expérience fier de la NEC, c'est maintenant. Ah. Hmm. ah oui. mais à quoi nous servent les techniciens. ah oui ñoo ñoo yor yëpp c'est sachant hein. ça suffit pas voilà. waaw ça suffit pas je peux être d'accord. je peux être d'accord. mais bu faites ni ku de nekk dañu jël pôle bàyyi kaag pôle jël gens bàyyi kaag gens ku si nekk di nga xam nooy élaborer. hmm bo gisee sen décret de nomination peut-être ils ont fait l'école ils ont le diplôme. tu sais en arabe même une minute dama wax la gis nga gis nga ñoo xam dañ leen def loo ay bêtises bañ dugg kasso ils vont signer des choses. hmm ils vont entrer en prison. li man maa la ko wax. yàlla bu ñu egg fofu non xam nga dafa ma wax la ko. Hmm. manque d'expérience. gis nga gestion. hmm gestion. hmm chaque jour qui est exposé. C'est des risques énormes. Je suis d'avis. L'on est que talibé. Dodon Serignam. Dodon Serigne. Déjà mais wa. Ouais ouais nit mën na tok ñu sol ko alcorane mu xey. Mais la fi mu nek ni boy wax ci affaire assemblée hmm. dama lay déglu. Parce que xawma ci dara. Hmm. Je sais que xawma ci lu bari. Hmm. Je t'écoute. Ci li wax ça tient. Est-ce que amna ci réew mi régime yu jatt jaar premier ministre bu def déclaration politique générale mos fi am. Bu ko def Waaw. Ñeppay jaar fee.

problème bi lenn rek la war nañ ko fii waxati nañ si c'est le règlement intérieur bi la ñu war a conforme dañ ko nañ ko nañ ko boole mu nekk benn maanaam article yooyu génne woon premier ministre naka ca delloowaat pour premier ministre mën a am yaqin que ni moom fi muy ñëw place am la mais mënuloo ne ma man damay woo assemblée nationale damay woo premier ministre alors que le premier ministre nekkul sama texte le premier ministre n'est pas dans la dans dans le dans ñu ko dans le règlement intérieur de l'assemblée actuellement bu baax bi boobu mais les députés n'appellent pas le premier ministre ne convoquent pas le premier ministre

assemblée nationale Nous sommes tous les si mbedd bi tant que wax ko devant la représentation nationale mm. valeur du mu mm. d'accord valeur bi l'assemblée nationale c'est c'est c'est le Sénégal en miniature très bien donc nous mm. avons nañu bàyyi problème boobu je me dis que c'est derrière moi hein pour une déclaration les waaw pare si du moment que nous d'accord, les trois présidents de groupe d'accord nous que ni euh, règlement intérieur moi je me dis qu'il n'y a plus de problème donc on nañ peut a war nañ c'est hmm. donc euh, contrat comme on nu dit euh, le concernant Mimi Touré vous l'avez parlé, je j'aime pas parler il y ma yàlla baal hein, hmm. sincèrement moi je me dis que c'est vrai c'est une dame je mettrai ses mérites entre parenthèses aussi hein hmm parce que moi, je suis politique Donc, je politique je me dis que ni Mimi en quoi il est plus méritant que les autres. en quoi Mimi Touré peut doit aujourd'hui donneur de hmm. alors que moi, je 11 ans la a vécu les 12 ans de Macky hmm. douze ans mii mi daf ko dafa mën sëkk da ñam ko moom dafa ne salaamaaleykum toogandoog moom maama kii dem mu sànni ko xeer mhm. maanaam moom dafa lekk si ndab li ba ndab li jeex mu ne xaaral ma xëpp suuf yóbbaale exactement mii dafa xarab dafa xarab ay waxam nag moom jarta dóor sa